de leen wax ni maa ngi wax ci turu LD Debout parce que xam ngeen ni LD ñaar la am na LD am na LD Debout LD Debout bi taxaw fii nag mooy le digne héritier de la LD MPT ñi nekk sama génération wala ñu mag ma tuuti xam na lan mooy LD MPT di professeur Abdoulaye Bathily LD boobu moi, LD il a participé à tous les combats démocratiques de ce pays là LD Bobo, moi, LD à chaque fois que Sénégal a ci dégainé, il a tracé waxtaan voie pour que Sénégal génn ci diggante LD debout aujourd'hui est dirigé par Pape Sarr il est empêché il est en dans la campagne je voudrais dire aux Sénégalais à l'intérieur du pays comme en dehors du pays, que l'heure est grave. Et il faut être lucide pour faire le bon choix. La LD a participé à toutes les alternances de ce pays-là. La LD Debout n'est pas un parti qui est intéressé à intérêts individuel. égoïste, non. C'est l'intérêt du peuple sénégalais qui nous intéresse. Il y a de cela 18 mois, nous nous sommes réunis en secrétariat. Nous avons analysé la situation du pays et on s'est accordé pour dire que si on ne se levait pas, le Sénégal risque de vivre des périls dangereux. Nous avons dit il faut qu'on se mobilise pour deux combats. Le premier combat, c'est faire de telle sorte que Macky Sall ne soit pas candidat. Pas de troisième candidature. Et dans ce cadre-là et dans ce sens-là, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons rencontré les forces politiques de ce pays-là, les unes après les autres, pour mettre en place la F-24. Et je crois que la F-24 a réussi sa mission. Si ce, n'était pas la F-24, aujourd'hui, Macky Sall serait là à battre campagne. Nous l'avons acculé, nous l'avons poussé à quitter le champ politique. L'autre combat, c'était quoi L'heure étant grave, Sénégal n'est que bo xamni ne képp ku juk taxaw wax yaakaar ya wara war yoré mi si Sénégal nga gis réew mo xamni picc mu juk ni ma président de la république Xol leen bi nee nit ñi dem les fiches de parrainage combien de Sénégalais se sont levés pour aller retirer les fiches pour se dire président de la république parce que suñu n'est dafa Macky Sall dafa yàq suñu il faudrait qu'aujourd'hui nous ñu taxaw li ñu def bu en tant que debout nan leen wër leader ils sont dignes de confiance mën na y yaakaar ni nous war pour rassembler toute l'opposition autour d'un candidat loolu moo suñu ambition ñun rassembler toute l'opposition autour d'un candidat une mission bu difficile C'est le ma sang. wax sànq waaye nag soo candidat. nga xool si candidats yi nga xam candidats lañu nous avons sollicité à rencontrer des leaders d'autres leaders ont sollicité à nous rencontrer à travers des échanges nous avons analysé le pays il y a eu des convergences de vues. Nous, au niveau de la LD, on n'attend pas un mot d'ordre d'un quelconque secrétaire général. Non. Nous sommes un parti structuré, national. Nous avons convoqué tous nos militants en bureau politique le 19 août 2023. Dans ce rapport-là, il y avait deux choix à faire. Parmi ces deux choix, il y avait Khalifa Salah. Quand on a discuté en bureau politique, on a dit que le Tahaou Sénégal a une base nationale et représentative sur tout les politique, sur, sur tout le territoire national. Nous avons partagé un programme adossé aux conclusions des assises nationales. On les a rencontrés, nous avons discuté, Wartan, ñun Agnon, am convergence de vues sur le Sénégal Nous il y a ñoom am ay convergence mais candidat yi dafa am loo xam ne dañ koy et ça ça renvoie au profil de l'homme qui est Khalifa Ababakar Sall c'est un excellent candidat c'est l'homme qu'il faut à cette situation du pays pays qui a ne dafa craquelé pays qui a ne ay morceaux la def réew moo xam ni diine ji xeet yi confrère yi ku si nekk yaa ngi xool sa morom teg ko noonu réew moo xam ni suñu moytuwul di xew si yeneen dëkk yi mën na fi am réew moomu danoo yaakaar ni ku ko war a jox war nga fendi war nga fendi war nga mat war nga am jaar-jaar war nga xam àddina war nga wër adina xam adina waye Sénégal dafa nek rew mu neex rew mu neex rew mu neex lañu nek da ngay teud lek say ginar ray sa bir yewu ni man may waji jox leen mako ñu ni Khalifa dafa résumer son programme de façon charmante nit ki nit ki l'être humain la créature la plus sacrée créée à l'image de Allah subhanahu wa fa la teg programme nit ki na leen ko jàngal ba mu mbokkal na liggéey na am teraanga na faju na wér na nekk ci réewum jàmm loolu la jiital nit ki ñu ne xalifa

il faut que suuf si ñu xol naka lañ koy joxé bu ñu bëggee bu ñu bëggé bu si il faudrait une autre gestion de la terre mu ne ndox mi ndox mi l'eau source de vie sans eau point de vie sur terre khalifa ni man ndox mi sama aajo la muy géej muy dex Sénégal ngay dugg dem si dëkk gis ay jigéen ñoo xam ni pour ñu wëgg seeni seeni mbala bala dañuy jël mbaam takk ko muy dox di dem di dox di dem ay kilomètres yi pour que nit ki am ndox moom mu bëggee euh, bàyyi maam mu ne ndox mi man ne ñett yooyu rek dafa doy ñett yooyu rek doy sëkk pour jàppale xalifa Sall le 19 août

Nous àndoon ak ay nit def alternance en 2000 ban dese lul seddo pour liggéey réew mi la feeñ ñu ànd ay nit def alternance en 2012 bañ demee ba sa biir ñu gis la bon ñun bu ñuy dem dañuy ni kat kat gis le seul exemple j'ai des amis de Dakar Cheikh Gueye est là Ousmane Doy. les camarades me disent que dans Benno le Sénégal le seul maire Benno qui faisait du Benno c'est Khalifa Ababakarsal... le seul maire Benno qui faisait du Benno c'est Khalifa Ababakarsal... Sall Sénégal mbokk adina bi réew mi toll na foo du yëfu xol yëfu xel la du yëfu xol du yëfu xel la du yëfu du yëfu yi dañ koy sur ces 19 candidats à la présidentielle le meilleur candidat c'est Ababacar c'est Khalifa Ababacar Sall may woo Sénégalais yi nga xam ni ñu ngi si réew mi ñu ngi si diaspora bi di woo mag ñi ñu wax ak xale yi di woo xale yi nga xam ne am nañ un certain niveau parce que xale yi aussi bu leen seen i bàyyi yóbboo école ñu jàng ba tollu fenn fii am na ay yenn yoo xam ne ñoo war a éclairer seen ay moroom may woo xale yi di woo góor ñi di woo jigéen ñi ñun waa LD dëbb on est derrière Khalifa Sall. On a toujours dit que les hommes de gauche, étaient des faiseurs de roi. Aujourd'hui, la LD, debout, parti de gauche, sera un faiseur de président. Et le 24 prochain, mars 2024, nous allons élire massivement, massivement au premier tour, le président Khalifa Ababakar Sall. Donc, nous allons